non euh, def ngeen un un processus <laughs> nga nekk ci processus bi nga d'accord les règles du jeu. non. lan nga d'accord ci règle du jeu. xam man loolu aussi wax naa ko te wax na finalement sax bu yàggee daf ñuy tardeel man li ma wax mën naa ko wax fu ne man li ma wax bi ñuy defee processus bi gudd na man maa njëkk a bind président ne damay nekk candidat parce que moom xam ne 2012 lan ma doon sama taxawaay. bi nga xamee ne bii réunion yu bëri am na sax benn bi nga xam ne rek laa ci tudd keroog bi ñuy wootee dajale ñëpp man la ma wax rek mooy man maa la tànnoon 2012 parce que yaa ma vingt 2024 bi ku ma doy lay ànd ak ku ma doy lay ànd ak lu ma koy wax mbooloo ngi toog kenn du ma tànnal aw benn problème personnel avec Massamba dem ma dañuy politique liy tudd leneen kiñ ma tàndal sama bopp laa ko gën a wóolu. ma damay dem. ki nga tànnal doyu la. waaw ah, tout simplement sama bopp laa gën a wóolu loolu kenn terewu ko. dafa amoon débat bu ma dégg ci biir ñu ne Aly Ngouille nee na bu ñu tànnee Ablaye Daouda il va le soutenir. loolu daal du ma ci dikk li ma wax daal mooy. bu ñu bu ñu tànnee Boun jon il va le soutenir mais bu ñu tànnee Amadou Ba. Euh, du ne du ko soutenir de waaye lu leer mooy tax mu soutenir. non non non lu leer mooy la. buñ tànnoon Ablaye Daouda di nga ko soutenir defal naa ko ñett yi nga wax yëpp buñ tànnoon Ablaye Daouda di doo dem li ma la mën a expliquer daal fi mu doon nii dootul ma xuus ci loolu xam nga li ëpp solo ci wax ji du wax yu sew yi mooy wax ju mag ji wax ju mag ji mooy man ku may ànd ak fi ma toll ci politique maa lay tànn danga may doy loo ma du ma la tànn aussi simple que ça te noonu laa ko waxee noonu laa ko defee dayu la mu nekk mu jiite la dans le cadre d'un gouvernement. waaw waaw bien que yéen ñaar ñëpp dañ leen tànn waaye bu bu bu nangu. premier ministre kon tontu nga sa bopp keroog ma ne bul nangu premier ministre bu la doyul. non déedéet du question doyul cest à xam nga gouvernement du yow yaay am politique. encore que moom mi premier ministre amul politique muy def c'est le président qui définit la politique. d'accord mais c'est lui le chef du gouvernement. waaw ah, ah, man bu may démissionné moom moo yow ko déggandoo. man bi may démissionné. yow yaa choisir forme bi. kon nag du tere na du terewul démission bi jàll na. donc ça veut dire que c'est possible. yow yaa choisir forme bi. dama ne dama la jël ci sa kàddu dama ne la keroog bi may démissionné. yow yaa décidé defee noonu. ma ne bi may décidé parce que ki ma tànn moom laa jox kat lettre ne ko bana delloo naa li nga ma joxoon.